laqil lisaani waxlulan min hul uqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abada waj'al kalaami raashida wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allazi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 bu ñu demee ci téereem boobu ñuy wax almajmuwa nga xam ne ci lañ dajale euh, xikma sëriñ bi mm, ci ndigal cheikh abdul ahad radiallahu anhu danañ fekk ca xëtu fanweer ak ñett page sëriñ Tuubaa di wax ne al awaamiru turuqun ila al jannati allati wu'ida al muttaquun wan nawaahi turuqun ila an fa mata kunta ala amrin faqad salakta tariqal janna wal aksu bil aks Sëriñ Tuubaa daf ñuy wax ne ndigal yàlla yi ñooy yoon yi jëm aljanna ja nga xam ne ni ñu ragal yàlla yi la ko yàlla dikk ñoom la ko dencal itam waaye tere yi tamit ñooy yoon yi jëm safara wa nga xam ne nii sun borom ay nit ak doj la koy xambe dina wax ne saa boo nekkee ci ndigal mu wóor na yaa ci ndéggal yàlla yi na la wóor ne soobu nga yoonu àjjana waaye safaan ba itam noonu boo nekkee ci tere yi tamit na la wóor ne soobu nga yoonu safara am na kilifa gu baax goo xam ne nii nag am na ko laajoon ne ndax xam nga ku jëm àjjana ak ku jëm safara mu ne ko loolu de yàlla moo ko xam waaye ku jaar yoonu àjjana ak ku jaar yoonu safara moom xam naa ko loolu kon day dellusiwaat ci waxi Sëriñ Tuubaa muy képp ku nekk ci ndigali sunu borom na la wóor ne yaa ngi ci yoonu àjjana ah ku jëm ab dëkk nag nekk te te mu wóor la yaa nga tegu ci tegu ci yoon wa boo wàccul yoon wa te jàddoo taxawoo da nga àgg ci ci yàlla waaye nag ku jëm dëkk mm, jaar ci yoon woo xam ne da ko du te wàccoo yoon wa it na la wóor ne dëkk boobu danga nga koy gën a sori kon nag ab dëkk ku fajam jëm jaar ci aw yoon Cheikh Abdul Ahad radiyallaahu anhu yàlla na ko yàlla fayal am na ku ñëw ci moom it ne ko dama bëgg nga wax ma ndax yéen yow mi fi nekkal sëñ nga wax ma ndax man eh, nituk àjjana la wala nituk safara la sëñ bi la tontu ko ci alxuraan ne ko innal abraara la fi naimin wa innal fujjaara la fi jahim léegi nag yow yaay xool foo ci bokk <laughs> loolu mi ngi ci suratul infitar suñu borom day wax ne ñu baax ñi ñoom ñi lañu dëkk innal abrar la fi naim wa innal fujjar la fi jahim ñu bon ñi nag ñoom mbiir sawara la ñuy dëkk yàlla na ci yàlla musal nit ki nag mooy seet ba xam moom fan la nekk ci yooyu yi ba tey Sëriñ Tuba euh, buñ demee ci téeram boobu di majmua ba léegi day wax ne man araada minkum duxuulal janna allati wa'dal muttaquun falyatawajjah ila llahi bimtisaali awamirih wa man araada najaata min annaari falyatawajjah ila llahi bijitinaabi nawaahi ci xëtu fanweer ak juróom-ñeent ca majmuha ba tey day wax ne képp ku bëgg ci yéen dugg àjjana na jublu yàlla ci topp ay ndigalam waaye képp ku bëgg mucc ci yen ci sawara na jublu yàlla ci wattandiku ay tereem kon nag euh, sëriñ bi yooyu ay jàngale yu yu yu yu mu fonkoon la te yu bari la yoo xam ne ne wax na ko fu nekk moo tax waxtu nekk ñu tamit ñuy ñuy ñuy ñuy ci di ko fàttali sunu bopp di ko fàttali itam ñëpp buñ demee ba tey ci téere boobu ñuy wax almajmuha xëtu fanweer ak juróom benn ak xëtu fanweer ak juróom ñaar page 36 37 daf cay wax ne allahu tabaraka wa taala amara wa waada wa naha wa awaada wa inna min xusni danni imtisaalu ma amara bihi maa rajai fawzi bil mawud allazi huwa aljanna allati wuida almuttaqun wajtinaabu ma naha anhu maa rajai najaati min almawid bihi allazi huwa annaaru allati waquduha annaasu walhijaara uiddat lilkaafiriin wa inna min ittibaai zanni naudu billahi min tarkul imtisaali biqtihaamil manhi maharajaahil fawsi bil mawud nee na sun borom tabaraka wa taala rek dafa digle dige tere tëkkoo bokk na ci rafetuk njortu nag ngay def lim la digal ànd ak yaakaar lim la dig muy janna muy muy aljanna di wattandiku itam ay tereem ànd ak yaakaar a mucc ci eh, lim tëkkoo muy sawara mu ne bokk na ci nag topp njortu te yàlla nañ ci yàlla musal mooy bàyyi lim la digal nuur ci lim la tere ba noppi di yaakaar tex ak ëllëg yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mu leeralaat ko ci weneen bayit ne képp ku yaakaar àjjana ci lu topp yàlla ci sunna bi bu ëllëgee da nga woru rajaa u jannatin bila taati bi sunnatil maahi gururun yaati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 in uridu illa al islaaha mastatama tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim